bëre leen wallaay xaw doon wax naan ndaje si daan moo waaye xamu si dara sax mbëri fu toll ni naa ñu xoox nañ man xoox naa waaye ñoom dara dara xooxuñ dus ñoom ay saan rek géwél sax fu toll ni son nañ dëgg bi sans pollution mooy fi tey dimanche 27 novembre 2022 fii si arène nationale si diggante ndigal écurie de lutte Balla Gaye moom moo moo ñu ak Falaye Baldé moo nekk écurie de lutte Falaye Baldé moom mooy Zarko déedéet astafurlah Zarko booy Grand Yoff la Zarko Baldé kuy wax di nga sonn waaye wax ji bu di nga juum tamit ndeysaan ñaari xale yi bëre ngeen waaye condition physique bi. mais saako yi nag bi ngeen jeexee ku sonn da ngay génn maa la wax lii. moo ëpp avantage parce que ndigal am na ñaar avertissement béy nañ 10 minutes daaj noppal ñoo ngay xeex lañuy jokkasante rek yooyu yëpp ay sóob la fu mu toll nii ñaar ñëpp jàppante bi moo leen arrangé maa la wax lii reporter yëpp nopp nañ man rek maay wax dañoo sonn eey waaye jaka fu mu toll nii jàpp na waaye ndigal tim jàpp na da koy fàqat demul munul nekk ñorul togg ba ñorul Jacob ba dool bëgg daaneel daanu ndigal daa am doole ku ëpp doole ñaari yow mënoo ko def loolu. Ah, baalu naroon am amaat baalu naroon am amaat. fii ngeen taxaw nii fii la Siteu daa yor Papa fii ngeen taxaw nii. Mangarima fii la Siteu daanoon Bébé Bismi fi ngay taxaw nii taxay non non dem daa diis mënul nekk da amana wetu abit baa mu dem abit abit abit ngir yàlla buur sifle abit ngir yàlla buur sifle daan na Baldé Jacob Baldé def na lu mu war a def yëpp daaw Jacob Baldé def na lu mu war a def yëpp daaw digal daan na ko oh digal daan na ko digal daan na Jacob Baldé xool naa loolu bu def na ko buur bal naa def ko def. Jaraama ñaari mbëri mbëri ngeen daan ngeen